لا إله la la mën si te tuddoo mën nañoo wax ne saa bu sama Touba Diagne bu ñuy tudd yoonu mooy Cheikh Ibrahima Fall moo tax ndax moo ko jàngale moo jot moo ko indi ci yoon loolu rek nekk na lu doy waar bu dee taarix bi dem nañ ci day nekk loolu kiimaan te euh, euh, euh, jàpp naa ne aussi ñoom studio mooy identité maanaam culture identité ñoom kon Cheikh Ibrahim mi nga xam ne dolli na ko réew mi ci indi lépp sukk dolli na ko ak sukk def na ci lu wér dara jàll kaweel sa kii Cheikh Ibrahim Fall man ñëw naa fi ñetti nit muy liñ bokk si waaw ko bokk ci muy bokk muy yàgg boo xam ne bokk naa ko bokk ko muy am bokk ko maam seen Aliou Fall wax naa ko ko man bi may xale nekk ci sama dëkk aada muy Kër Mbaye dam bu ñu rek mu rek damay jàpp ne sëñ Fall Mbacké la ak sëñ Cheikh Fall Mbaw ci Baye Fall ak sëñ Basir ñoo doon ñi ma gënoon a xam comme ni ma ginnaaw suñu ci bi may ndaw mais ginnaaw bi nga xam ne nag dugg naa ci yoon wi euh, tarbiya bi ak euh, waa sëñ Tuubaa yi euh, ndax bi ma ne ñaar fukki at benn ci laa tarbi di ànd ak sëñ Essence 1966 it yéen ñi booba xam naa ni juddoo bu leen ci laa jébbalu ca Louga ci kër si Arif Lo mooy bi sëñ Basiru génne àdduna ba sëñ Moussa Basiru def tournée loolu yàgg na euh, jàpp naa ne 75 laa jëkk yëkkati addiye joo xam ne am na solo sëñ Moussa Basiru bind ma lettre ni ma toolam yi ci bulkan muy tooli àllarba yi man la sase may joxe jiw yi booba moom junni jafe na waxuma la nag di joxe ay barigoy gerte yu ñu xolli def ko loolu tàmbale naa ko ci ba am ngërëmul sëñ Moustapha Bachir mu ànd ak ñeent fukki oto ak juróom ñëw Kër Mbari gërëm ma ci jamono yooyu booba ngërëm yomboo gannaaw bi loolu am naa ko ci sëñ Aflaat am ko ci sëriñ Saliou moo tax bis bu mel nii bu dee kenn koo xam ne doom la ci ñun ndax noonu laa koy tuddee sëriñ la ci ñun waaye doom la euh, woote ko yëgal ko yëgal ko njiitu réew mi président de la république Macky Sall ak ñi ma deme ñoom euh, war naa non seulement dox ci tànk pour lépp war a mën a mën a mën war naa fi teewal suma jëm barkeelu ci bés bi sàkkul ci ñaan président de la république ak réew mi ndax soxla nañ ko a Coumba Ndoffène Diouf teewal fi président dana wax yóbbante li nga xam ne moom la ko président wax pour mu wax ko ci Cheikh Ibra fekk sëñ Cheikh Fall Mbawar mi ñuy xaar xam ne mooy waajoo sëñ bi euh, ñëw ndax nee nañ ma ñu ñëw euh, mais du ma mën a bañ a wax kaddu yi euh, ndax ni ma demee ci kër gi demee ko ak man nag dama ñëw pour suma diggante ak kër gi buñ ko defoon feneen dinaa ko def ndax maa ngi waaj jël avion pour dem ci mission sëñ Moutala muy journée culturelle Cheikhoul Khadim dañ koy def huit juin à Brescia président baaxe ma pour man ma jiitu délégation bi demal ko foofu euh, lu mel nii lañ koy def ñu ngi koy de ci yeneen jotaay sëñ Mansour Diouf benn bis kon moo tax ma ñëw rek barkeelu ci bis bi sàkkul ci ñaan réew mi ak président de la république waaye it ñëw joxe Cheikh Ibrahima maa la baax juddoo la jëmm Seex Bamba mbég leen nam basiir Cheikh Ibrahima Fall mbég leen nam basiir mbég moo ci def lekk ko suñu njëgeel ma kii toogee ñoxe Cheikh Bamba am nam Abdoulaye Cheikh Ibrahima Fall am nam Abdoulaye Abdou mu nekk martawaay bul weddi Cheikh ba gaay doxe Cheikh Bamba Cheikh Bamba am nam Serigne Saliou mii nuy jooy te noppeeku noo màggal leen Serigne Saliou Cheikh Bamba am nam Serigne Saliou faal am nam sëriñ saali woo nun ngi mooy ñu saali woo ba ñibbi àjjanaay jaxe Serigne Cheikh Fall Mbawor moom Serigne Aliou Fall Mbawor moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina moo nuy nuyu di nuyoo bu màgg bu tedd bu ànd ko cant akum ñaan ak gërëm wuyu si bi ngeen ko wuyu si ci wooteem bu màgg bi mu woote ndax ku ñu gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall Mbawor daa wóoti bis bii ci ndigalul ku ñu gërëm di sëriñ Cheikh Fall muy bisu ku ñu gërëm koo xam ne ku am gërëm moo gërëm muy maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina bis bi nag ñu jagleel ko ñaar ñu ñu gërëm ñaar ña nag di kan muy Sëriñ Tuubaa rek ak Cheikh Fall ndax saamam Cheikh Fall dafa waxan ni borom Tuubaa ba mu ko nee wax ma loo gën a bëgg tey ma dafa la ko da ko li ma gën a bëgg mooy sa càng gi fu mu yegg dafa sama njaam gi yegg gis ngeen sànq ci ki ñuy tàmbalee njabootu si Abdou Khadir Mbacke nuyu bi ñu nuyoo ci xësiday borom Tuubaa Xaadimu Rasuul yi maam si Ibrahima Fall jël bis bi ci ndigalul wajuram bu baax wii yal na fi yàgg te nit ñëpp ni sëñ Cheikh Fall Mbaor yal na fi yàgg te ba li mu bëgg liggéeyal maamam ci yoon wi mu man ko te def ko te ñu nongol ko ko te mu ànd ko noonu faaw maam Cheikh Ibra Fall ci ndigalu wajuram bu baax wii mu jël bi ñu tudde ko si Abdou Khadir Mbacké Seydi Sadat yilimaan yilimaan yi jëmm ji nga xamante ni li gën ci dundu nit muy jinne muy malaayika Cheikh Abdou Khadir Mbacké moo ko daa ñaan ba borom Tuuba may ko ko mu defal nu ko mooy lan mooy istixaama ak xusnal xitaam yal na ko yàlla fayal Cheikh Abdou Khadir foo musaa toll day wax ni yàlla saa borom defal istixaama te defal usul xitaam istixaama mooy sax ci jub usul xitaam mooy mujj rafet yal na ko yàlla defal fa njabootam ngi nii toog sëriñ Xaadim Mbàkke mu sëñ Muudu Mbàkke mu sëñ Abdou Xaadir Mbàkke moom borom Tuubaa Xaadim mu rasul mu jiite délégation bi kon ñu ngi lay dalal jàmm di xamal ni bis bi sa bisu maama tey tam bis bii pour ñu la ko tuddee do asaar ndax maam Ibra Faal def nga rëy loo xam samaam ju baax ja maam si Ibrahima Fall moo ko njëkk a def ndax samaam ju baax ja day ba mu bëree daru rayim gor ko ñetti at jox ko njabootu suñ Momar Taala Fall mi nga bis bii dafa ñëw gor jépp jox ko sa maam ju baax ji sëñ Aliou Fall ma war sang bu bi moo ko jiite yéen a ko yàgg jiite waaye nag sédd bi mu sédd si Abdou Khadir daa daa di gor bax daat muy muy tool yi waa gépp kon kon si Abdou Khadir su fekkente ni sédd nga ko am cër ci bisu maam si Ibrahima Fall ci ndigal sa wajur bu baax wii sa maam séddal nga ko am cër ci mooy gor daara yi mu dul liggéeyal borom Tuubaa Xaadimu Rasuul mooy bax daat kon nag def nga lu ko matee yal na yàgg ka ca topp di saarix bi sëriñ Momar Talla Fall sëriñ moom Talla Fall moog wajur ku baax wii ñoo bokk nawet baay waaye du ko ñu defar njabootu Sëriñ Tuubaa gépp nangul ko ko njabootu Martial Fall gépp nangul ko ko ndax borom Tuubaa suñu musaani diw diwa ko jur mu ne ana yar daal di wax ni ku gën ko la yar gën li tax borom Touba gën ñëpp wax ni ku gën ko la yar gën ba noppi wax ni man ahmadul xadim rabbi nii rabbi rabbi nii rabbi rabbi raqi nii saani saaki lii noonu xab la fa ku gën ko la yar gën te man ahmadul xadim yàllaa ma yar borom Touba mi yàlla yar nag mooy Serigne Momar Talla Fall mi ngi tudde bis bii sëñ Abdou Rokhaya Fall yabal na fi rakkam sëñ Abdou Sakkoor Fall ñu naan ko sëñ Abdou Séni Fall mi ngi nii ànd ak délégation bi mu àndal jóge kër sëñ Abdou Rokhaya Fall ànd ak yar ak teg ak taalibe ñuy nuyu tey siyaare sang bu tedd bi sëñ Cheikh Bara Laat mu Cheikh Sidil Muxtaar ñëw na ci jotaay bi di Seydou Sadat ànd ku taalibe ànd ko yar ànd ko teggin di xam la ni wuy juróom wa ne na fu ñu yëngale dara Maam Cheikh Ibrahima Fall moom jàpp na ni loolu moom lañ ko yëngalal moom si Seydou Tar yàlla ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fi téwéer di nuyu suñu Cheikh Jëmb Fall xalifa général Baye Fall yal na yàgg jiite kër Maam Cheikh Ibrahima Fall bi fu mu ko jëme yàlla fa ànd ak moom suñu demee ba te kanam su sama kàddu daanoo dañu def discours français suñ ibnu sàmb muy jël def discours bi ci tubaab su su demee ba noppi suñ ibrahim njaay maam jaara dina jëlu tulug fukki minute indil na woyu suñ bay jaxate soññ gu mu soññ ci ak taalibi su loolu demee ba jàll délégation yu mag yi njabootu si Abdou Khadir Mbacke dañu fi jël kaddu njabootu Serigne Momar Talla Fall dañu fi jël kaddu suñu nopp sëñ Gana Messere dinañu waxtaan ak taalibe yi ci ak taalibe maam maam Ibra Fall bis bii mooy si juróomeelu bis muy cinquième édition 2011 moo ko tàmbaleen ba léegi ngir lan wala sa maam ndax bi nga jëkkee ñëw da damay wane Cheikh lu waay xam ci Cheikh Fall na ko wax jar na sa maam wane Fall ba ca to nga ni damay damay wane liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina mu Cheikh Fall ak liggéey ku ca dara na ko wax ñetteel bi. nga ne damay bëgg a wane yar bi maam Cheikh Ibrahima Fall yar bindéef yi ak jàngale gi mu jàngale ak taalube lu ku ci xam dara na ko ci wax ñeenteel bi nga ni damay wane yaatal gi maam Cheikh Ibrahima Fall baabu muridiina yaatal yoonu murit bokk nekk jot ci ndax borom Tuubaa moo wax ni Ibra Fall bett na ma bettaat ma bettaat ma ndax li wan ci man Ahmadul Xadim damaa def woon ni kenn xamu ko Ibra Fall xam ko ma defee ne ku ko xam doo xam nooy def ba jariñu ci Ibra Fall xam ni muy def ba jariñu ci ma defe ni ku xam nooy def ba jariñu ci dooru ko yéene kenn Ibra Fall yéene ko ñëpp yi maam Ibra ngay wane yaata ki sa maam ci Ibrahima Fall yaatal yoonu murit yal na la yàlla yaatal yaag sa baay bu baax bii di di waju di ab sangañu seekul ma nga ni dama bëgg ñu waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak jàmm maam Cheikh Ibrahima Fall nag mooy jàmm ndax mooy diine lislaam ndax aslama mooy jàmm aslama moo di njëbbal bi maam Cheikh Ibrahima Fall di indi li fi indi mooy nga ne lan nga ne aslamtu nafsi jébbal naa sama bakkan ci diinay jàmm kon Cheikh mooy jàmm lislaam jógee ñëw sañ njaareem fekk ci sëriñ bi 1916 def ñaari daara tudde jenn daara ji makkatal mu karam tudde jeneen daara ji madinatul munawara dafa woo Baye Modou Gaye moo ma ko 1975 ne ma Mourtaza ma ne ko Fall mu ni Sera Fall woo nañu nu ñëw ma wax ni adoom seen maam Ibrahima mii ko fi yàgg la seen maam Ibrahima liggéey na fa Makka jàkka joo xam ni at ba at lañ ko julli muy Kaabatullah liggéey fii fi njaareem jàkka joo xam ni at ba at lañ ko julli mooy jàkka joo dox diggante kër Serigne Assane Fall ak na keroog Cheikh Fall yëkkati ni benn loxo bi dóor ko ca morom ji ni doom sama loxo bi liggéey na ca Kaaba ak Makka ga sama loxo bii doom liggéey na ca Kaaba ak Makka ga loolu dëppoo li sa borom wax ni wa is yarfahu ibrahimul xawaida min al bayti wa ismailu rabbana taqabal minna innaka anta samiul alimun ibrahima xalilullahi ma ne mooy ibrahima sa maam sëñ Cheikh Fall yal na fi yàlla Muhammad Rasul mi yor muy àndaari suuf yi jàmm xoolal àndaari suuf te booba àndaari yoon soo ko peesee lu mu niiw niiw dina mu juróomi kilo ñetti àndaari suuf àndaar bi nekk ñu ëmb ko ci ab morso muy àndaari jàmm àndaari suuf yi jàmm Sëriñ Tuubaa du fekk ay jàmm jàmm ëpp jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall ni ko àndaar jii na ko def ci sa kër gi mu tuddee màkkatal mu karam maam Cheikh Ibrahima Fall def yenn àndaaru suuf ja ci kër gi mu tuddee màkkatal mu karam moom la ñuy wax màkk loy loy mooy kër Cheikh jenn àndaaru suuf ji borom Tuubaa jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muriidiina ni ko def ko ci jàkk jooju nga rëdd dem jàkk ca Makkatul Mukarram rëdd jàkk fii ci njaareem def ko ci jàkk joojee maam si Ibrahima Fall jël jenn àndaari suuf def ko ci jàkk joojii ci diggante ki si Ablaye Fall Ndar ak si Assane Fall muy àndaari suuf yi jàmm Cheikh Fall di jàmm jenn àndaari suuf ja maam Cheikh Ibrahima Fall rëdd ay armeel diggante madinatul munawara ga mu sanc ak makkatul mukarram ga mu sanc mu jël jël àndaari suuf ja def ko ci armeel yooyee maam Cheikh ni ñetti àndaari suuf yi jàmmi maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñi ñi nekk àdduna ñu ngi ci jariñu ñu nekk barsax ñu ngi ci jariñu yal nañu ko yàlla fay maam Cheikh Ibrahima Fall xam ni mooy développement ci néew mooy développement ci l'islam te bi ñuy ñëw l'islam néew na doole boo déggee borom sëñ Moussa Ka naan l'islam bi joo yëkkat ba génn gàddaay ca saw jant fépp mel ne làmbaay booba l'islam daa néew doole waaye lu ma a yëkkati nag l'islam mooy lan mooy jëf man amila saalihan fali nafsi te borom Tuubaa yar leen ci nga daray kenn borom Tuubaa danaan wax naan say alxayra laa taqraboo daray kenn bu leen ko jege ku bëgg di jege daray kenn nag da ngay liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg indi jàmm waaye lii indi am jàmm ci am réew mooy réew mi na am koom réew mi na naat réew mi nañu am lu ñu dundee <coughs> borom Touba Xaadimu Rasuul dem sëcc njax kër ma jéey am fa tool yu yaatu bënn fa teen dëkkal fa mbooloo ak boroomi kër ñu di fa liggéey liggéey bu rëy ci diggante gerte ak dugub ak lépp lu war a mën a ñor ci nawet su ñoree ñu teg ko ci loxol maam si Ibrahima Fall mu teg ko ci loxol borom Touba Xaadimu Rasuul mu dimbalee ko jaam ñu jàmmaloo bokk ci njabootu sëñ Mbàkke Fall ak sëriñ Moodu Mbenda Fall ñoo sañ ci Daaru Rahim maam Ibra Fall loolu nag sa mbindum maam laa ko jëlee sëñ moom ma taala Fall xëttu yet bi sëñ Fallu ko laaje mu bind ko mu nga ci saak sëñ moo taala ko bind maa ko jàng te mbind ma réeru ba wuccuma ko mu ñëw gor Daaru Rahim bay ko ñetti at bënn fa teen dëkkal fa mbooloo am fa kër dëkk fa am boroomi kër luñ ci liggéey ñu teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxol gor gépp sanc ko bënn fa teen dëkkal fa mbooloo am fa suuf su yaatu luñ ci liggéey teg ko ci loxo maam ci Ibrahima Fall ba mu diina mu teg ko ci loxo borom ko baax xaalis mu dimbali ko bindee fi loolooy jàmm mu gor Baxdaad gi ma wax léegi wóla rëdd goog si Abdul Xaadir Baxdaad di tool yi waa mbooloo mu bari nekk fa jëwriñu nangam Baxdaad yi moom bari na lool lu ñu fa jële ci diggante gerte dugub ak luñ ñor ci nawet nga teg ko ci loxo naan si Ibrahima Fall Baabul Muridiina ma teg ko ci loxo borom Touba Xaadimu mu dimbali ko bindee fi looloo jàmm. sëriñ bi maa ngi lay bu baax nuyu boo xam ne nuyu xol ak xel maa ngi xam nuyoo bi. di ko teg ci loxol sëriñ Cheikh Fall ma woor maam Cheikh Ibrahima Fall mu jottalil ma ko sëtu sëriñ Touba bi fi ne di doomi sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbakkeem sëriñ Abdou Khadir Murid Saadix ba sa bàyyee murid sëñ Saaliwu ko wax sëñ Muudu Mbakkeem sëriñ Abdou Khadir sëñ Saaliwu woo waxal nii lu may digle lu ne ca te Moodu taxul sama doomam ma déggal la lu may dégle ma koy wootee sëñ Moodu kon bu ma la nuyoo sëriñ Cheikh maa ngi fab nuyoo bi jaare la ko ci yow nga jox ko sëtu sëriñ Tuubaa bi ak ñi mu àndal di nuyu sëriñ Cheikhum sëñ Abdou Khadir jaamakatub yàlla bi nit ku muy maam Ibrahima suñ doomi sëriñ yi xanaa xamoo ni jàmm jikko la jàmm suuf suufee la suufee yaa moom moo daan tax a xeex wax nga tey nga moomatu tax a xeex Cheikh Fall moo ne sëñ Bamba yaa may moom yaa may moom du tax a xeex tey ma moom la mooy tax a xeex bi Cheikh Fall ne jëpp dani sëñ Bamba yaa may moom aj ko ca wàcc suuf mu ne ci biir néeg bi mu ne ci biti mu yor kurus gi ak der bi ak rakka yeeg kaamil bi maam Seex di ko liggéeyal ngir kër gi yéen doo liggéey fanaane roog gaa yi nelaw balaa xuréen balay ginaa di moo ko xewal daawul doxi Cheikh Rafal mooy lislaam bi jàmm mu amee ci la sëñ Bàmba ni jàpp wax ne dama yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi fam teg yonent bi di ko fa xool maam Cheikh Fall ñëw teg ko fa xool ko fa diggante yonent bi ak sëñ Bamba ak Serigne Touba. lu lu naqaree takkal ki la Serigne Saliou nee na yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak Baye Cheikh Fall du ñeenti juub benn juub la yàllaay def fi tànn sulaat fu ko neex feeñ moo feeñ di Muhammadu Rasulullah ak moo feeñ Cheikh Mat Tijaan Sërif feeñ ca Jili ca Baxdaad moo feeñ ci Sëriñ Tubaa dellu feeñ ci Cheikh Ibrahima Fall ma ni nit ku ñuul dafa tàmma toppe ba defa ne wër te jiitu jeeg bu ayee ba fégal raxase dabam dëpp toog ca matam di tey fu dënam nga xiif di ko xaaraan bàyyi jeeg bi reylu nagam di tàng tey durusi doo lekk sëñ Bamba ayee dinaa la wax benn baat boo xam ne ci laay tëjee waxtaan bi ci sama wàll ma ni a xam kuy Serigne Touba moo doon yonente bi sallallahu alayhi wa te ko doon yonente bi yaa fi nekkal yàlla rek di waay gaa yi Cheikh Rafa dafa wax ni baasin mi mën a doy na alxuraan dégg ko te liggéey jox Serigne Touba ñun ko baax mu ni maasalu yet ñu maas mu ni bàyyi lu bon faaw mhm. siin ñu ni maasalu yet ñu maas mu ni sax ci ndigal miim maas ko blong ñu maas ñu mucc àdduna ak alaxira ku bàyyi na kon sax ci ndigal di nga mucc fii yomal saan di nga mucc maa ngi nuyu soxna Njaxat Mbàkke doomi sëñ Abdoulaye jàmbaar ja xut bu samaan ba wóolu sëriñ Seex ma woor yëkkatee ko këram teg ko ci ay loxoom bu njëkk ga danoo defee wan ni Baay Faal liggéey ak laxasaayu rek a dem waaye bu Serigne Cheikh Mbawar jëlee doomi Serigne Abdou Lahad meññ ak ñoom ay góor yàlla Serigne Abdou Lahad moo jaxase kër Serigne Touba ak kër Cheikh Ibrahima Fall maa ngi nuyuwaat maam Cheikh suñu doomi Serigne maam Cheikh tàmbaay bu mat am ndey ju mat da mat suñ moo taala Fall meññ sa yaay suñu Mbawar a meññ sa nga ànd ak sa sëñ Mortala ñoom sëñ Moustapha ku ñu jóg dox ràppalaat nga xam ne kii góor yàlla la loolu sëñ Cheikh Mbawara waaye nag seen yaaya doom bu jaayee perte ndey ma nekk bénéfice am ku yëg sa ne sa ndey la daaneel sant naa sëriñ Cheikh ci yéen wala sant naa sax yéen lu sa bàyyi rëy rëy rëy bu yaay dee cuune boo nappee soowu cuune cuune ngay doon yéen a baaxi yaay jigéen tuddul jigéen jigéen la tudd jëf ji mooy ñimi gàncax gi mooy doom ji commencé nga xam ni nga ji maa ngi nuyu délégation bi ñu fi toog Cheikh Mbacke ak ñi ma àndal ñëpp di suñ mbokkum taalibe di ko bëgg sëñ Cheikh Mbacke di ko bëgg sëñ Moudou Moustapha di ko bëgg Gaynde Fatma di ko bëgg sëñ Mbacke Soxna Lo asalaamaaleykum wa rahmatullah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 Serigne Serigne Mokhtar xalifa général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di jël nuyoo boobu di ko jox suñu waajur suñu baay suñu xarit suñu kilifa sëriñ Cheikh. Mbawar Fall mu Serigne Aliou Fall Mbawar moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñuy jël liggéey nuyu boobu di ko teg si loxoom di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di jiital si nuyoo boobu soxna Njaxat Mbàkke mu Seex Abdul Lahat Mbàkke di nuyu soxna Njaay Fall ak mboolem taalibe yi fi jaar yëpp di jiital si nuyoo bi waa kër sëriñ Abdul Lahat Mbàkke waa kër Serigne Abdul Xaadir Mbàkke mi nga xam ne ñoom lañ jaglee bis bi ak waa kër Serigne Mor Talla Fall ci nuyoo boobu ñu ngi siy teg suñu xarit suñu mbokk maam Cheikh ba Fall moom Serigne Cheikh Fall Mbor moom Serigne Aliou Fall Mbor moom mi nga xam ne bis bi mooy njiit bi mooy bopp bi mooy lépp di ko mu yàgg kaa def yàgg kaa teewee ak mbooleem njaboot Serigne Cheikh Fall Mbor gépp si barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasuul li ñuy leeral dañuy tënk rek mooy ñi nga xam ne ñoo fi daje dañuy jëkkee si waa kër Cheikh Abdoul Khadir yi nga xam ne ñoom lañ tuddee bis bi di suñu buntu Serigne Touba Xaadimu Rasuul sëriñ seex moom sëriñ Abdou Khadir Mbacke si njiit li ñu ngi si ñu ngi jiital sëriñ seex moom seex Abdou Khadir Mbacke ak sëriñ siidi mo sëriñ siidi moom sëriñ Abdou Khadir Mbacke ak seex Abdou seex Basiru Mbacke moom seex Abdou Khadir Mbacke ñu jiital ci délégation boobu sëriñ Modou moom Serigne Modou moom Serigne Khadim moom Serigne Modou moom Serigne Abdou Khadir Mbacke ànd na fekk délégation boo xam ne délégation bu rëy la amul am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ak mbooleem xeeti fédération yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir Dakar ñoom ñëpp ànd ak nañ Serigne ñëw teew fii. kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di leen sant di sant seen taxawaay si taxawaay bu rëy boobu ngeen taxaw nuyu tamit waa kër Serigne Mor Talla Fall seen njiit li Serigne Abdou Sakour Fall nga xam ne délégation bu mag lañu def ñoom ñëpp ñëw nañ fi bàyyiwuñ kenn te ñoom ñëpp teew nañ fi. ñëpp di leen ziare di leen tatagal bi leen dalal di leen wax ahlan wa sahlan nga xam ne bis bi seen bis la yéen a ko moom mi ngi leen jaajëfal bu baax nee na lépp lu mu si liggéeyal Serigne Touba ak maamu maam Serigne Fall nee na ji woowu ak teraanga ji yàlla ngeen ko bokk si barke Serigne Touba. kon Omar Omar Yaya Sow dëkk Kër Massar teew teew na fi ak Birane Seck dëkk si Kaw Mbaaw teew na fi ak Coumba Ndoffène Diouf monsieur le ministre teew na fi mi ngi fi ak Omar Omar Kanté moom teew na fi tamit ak euh, Touré Camara président teew na fi ak Serigne Moustapha Sy ak Serigne Moustapha Cissé Lo ministre Abdoulaye Dieng ministre teew na fi ak euh, Serigne ak Cheikh ak Serigne Cheikh Ibrahima Fall Bambay teew na fi ak fàll Diop teew na ak Fallou Diop teew na fi ak mboolem xeeti ministre yu bëri teew nañ fi kon su si kanamee dinañ am yeneen tënk yoo xam ne dinañ leen jàllale ñi nga xam ne ñoo fi jot teew wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu